mi Minsalmi Nihon boo ñu ngi nuyu toute la presse bi nga xamante ni ñoom ñoo def le déplacement ñëw fii ci suñu quartier général suñu cosaan ñu ngi euh, nuyu également les autres activistes jóge ci yeneen mouvement yi ñëw teewee si li nga xamante ni mooy la conférence de presse bi nga xamante ni Fouta Tampi ñoom ñoo koy def organisé par le mouvement Y et les autres mouvements di jaajëfal mouvement Fouta Tampi sauvons le Fouta ensemble sauvons le Fouta ensemble sauvons le Sénégal parce que bu ñu isolé woo rek on devient très faible l'heure est au rassemblement jot na ñu dajaloo booloo te xam ni nous avons le même but et le but c'est quoi c'est de sauver le Sénégal Le but, c'est quoi? C'est de faire comprendre à ce qui désordre, désordre dans ce pays, qui est le président de la République, Macky Sall, et son gouvernement, que ni fii nii du dëkk boo xamante ni on va laisser des voyous ñëw di fi semer le pagaille. On va pas l'accepter. Alors, j'interpelle directement le président de la République, le gardien de la Constitution, monsieur Macky Sall, lui qui commence à semer le germe d'une guerre civile. loolu mooy pexeem loolu mooy mëbëtam mais ñu ngi koy xamal ni ko il ne va pas réussir parce que Sénégal benn bopp la comme vient de le dire Karim kenn mënu ko xar ñaar Macky Sall dafa tojle parce que il n'avait que le Fouta bi mu doon jaay nit ñi ne woy foofu man maa ko moom ba da yenn leaders yi sax campagne électorale da ngeen doon seetlu daawuñ sa daawuñ sawar a dem ka bari campagne à Fouta parce que demoon ba gëmloo ni leen sama fief la maa ko moom donc bi li amee mu nekk lu ko tojol lii mooy li ko gën a metti ki neuf ans wam yi fuuta tàmpi fiita fuuta maayi fuuta yàgg na tàmpi fuuta yàgg na may dafa fekk ne lu jot yomb donc ñu ngi koy interpeller ci li nga xamante ni moom la commencé di ko wax ni ko il n'a pas affaire avec des peureux ku ñu xam-xam ni en 2011 ñun ñoo doon taxaw ci kanam Macky Sall di taxaw ci suñu ginnaaw on a partagé beaucoup de fronts yoo xamante ni su benn grenade tàkkee mu ne picc daw ak ay nitam ñun ñoo fa doon toog di nokki les grenades avec le peuple sénégalais les dignes fils de ce pays ba looloo waral l'événement du 23 juin événement yi ngeen mës a dégg yëpp ba keroog ñuy empêcher à Abdoulaye Wade qui est dix mille fois plus puissant que Macky Sall de faire un troisième mandat kon Macky Sall c'est le cadet de nos soucis donc le problème n'est plus Macky Sall mais le problème mooy di woote woote bi nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoom la jël walaakaana loo leen ba ñu walaakaana mu surfe ci seen pauvreté boobu ñu entraîné ba nekk ay ponkal mu leen di jàpp ñuy dajeeg nit ñi man je suis depuis ci événement mars yi je ne vais pas me laisser tuer par un imbécile parce que ces gens-là que je vois y nekk ci mbedd yi di dóor nit ñi c'est des enfoirés ñoo xamante ni ils ne méritent pas d'être des Sénégalais duñ sax ay africain kenn xamul fu ñu leen jëlee donc je viens de comprendre les forces occultes yi nga xamante ni ñoom ñu ngi ko doon wax ñoom ñoo ko am yàlla weer na leen yàlla tojal na leen ñuy fragiliser li nga xamante ni mooy suñu police di fragiliser li nga xamante ni mooy suñu gendarmerie di fragiliser li nga xamante ni ñooy suñu institution yi à la place de la police et de la gendarmerie ñu dem jëli ay ñoo xamante ni tekki wuñu dara dem ak tey ñuy dal ci kaw askan wi duñu leen boole ak kenn vous êtes jeune et on est jeune si vous êtes deux cent mille nous on est dix-sept millions et le problème nous allons le régler nous-mêmes duñu bàyyi kenn di toj suñu bopp wala sax nga ñuy xosi on va pas l'accepter amul neexal amul naxtaan amul dara ay jeunes ngeen wóolu ngeen seeni biceps ñun tamit wóolu nañu suñuy biceps on vous attend de pied ferme donc le président de la république su fekkente ni yow sa violence gi nga violent ba nga xamante yi dafa feeñ tey ci kanamu àdduna bi yëpp amatuloo loo ci rus yéen dama leen di wax ngeen xam seen bopp yéen euh, bés bu ngeen di recevoir ay coups Macky Sall du ko yëg du ko fekkee kon ñun ak yéen ñoo dëkk ci town bi te yéen ñëpp indexé nañ leen xam ngeen fi ngeen dëkk ni ngeen di wëree di rëbb ay Fatoumata Ndiaye di dem kër Alioune Sané di ko rëbb di ñëw sama kër di ko rëbb sachez que noonu la ñuy ñëwee aussi organiser wu nañu buñ leen bugguñ leen a bett noonu ñu ngi leen di rëbb chasse aux nervis ñu ngi leen di rëbb te ku ñu ci jàpp dinañ la tànc lu baax a baax a baax a baax a baax donc c'était vraiment mes propos je remercie tout le monde